Sénégal ñu mujj jël ay risques yoo xamante ni euh, finalement du leen jëriñ dara ñi siy ñàkk seen bakkan euh, mën nañu ni dañoo mujj perte. waaw euh, daanaka da mun nañ ko résumer rek ci risque inutile mais man je vais aller plus loin Pape Matar dama ne c'est une inconséquence de nos politiques ñun publiques dafa am li nga xam ne bu ko état du Sénégal nguuru Sénégal. oui gouvernement du Sénégal bu ko defoon ci askanam. muy yow muy man sa rakk wala sama jarbaat. Hmm. kenn du ci xalaat ne day uti day waleyaan uti beneen dëkk. surtout dans ces conditions la absolument absolument. Pape Matar c'est-à-dire que man ma ne nit bu demee ba nga xam ne en connaissance de cause waxuma ñàkk xam ne mais en connaissance de cause. oui xam ne que gaal gi may dugg wala désert bii ma nar a jaar. Hmm, hmm. mun naa fi ñàkk sama bakkan. mu ne jaral na ma ko cest à dajale li mu amoon yëpp miraas boppam dem. mooy que ce pays. a atteint un seuil de désespoir inégalé c'est-à-dire li fi am ci ñàkk euh, xam nga nu ñuy waxatee espoir ci ñàkk euh, espoir ci dëkk bi ñàkk yaakaar ci dëkk bi mais cest à musul am léegi yow nga toog di xoole parce que dañoo dama dañuy wax tamit dañuy wax les faits dañu toog di xoole fan yi passé bi ñu décidé bi marine nationale décidé ne benn gaal du fi génn mais chaque jour nga dégg ni jàpp nañ ñaari gaal ñetti gaal de. c'est vrai que gëj naa dégg ñu ni jàpp nañu te pourtant. Euh, chaque jour nga dégg ni 200 wala 300 personnes euh, jóge nañu Sénégal yegg Espagne. yegg Espagne mhm. alors qu'est-ce qui se passe nit ñaa ngi dem ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi nit ñaa ngi dem. Mhm. dans quelles conditions on ne sait pas. mais li leer ba leer mooy armada bi nga xam ne moom la Frontex teg. Mhm. marine sénégalaise teg ko. direction de la police de l'air et des frontières bu Sénégal teg ko. ah man néew ma nit mënul rëcc dem Espagne de waaye dana doon lu jafe c'est-à-dire mënul yombe nii chaque jour ñu ne la benn gaal ñaari gaal egsi nañu chaque jour ñu amul jour c'est-à-dire bu tuutee bu tuuti ñaari gaal egg nañu Espagne chaque jour mais c'est que quelque part il y problème soit la surveillance bi ci waroon amul soit il y a un certain laisser-aller mais tey xale yooyu tous les risques pris ñu egg ba foofu ñu nar leen delloo mais xam nga loolu lu muy rappeler c'est le syndrome de 2007. Mhm. mooy mbëkk mi fi amoon. ba Abdoulaye Wade doon leen wàcce fële ca Bango. Mago Bango. Mhm. ñu leen di dox sandwich ak 10 000 francs. Mhm. mais 2007 dafa amoon ay accords yi nga xam ne. Espagne ci boppam moo ne woon day jël xaalis bu takku dugal ko fii Sénégal pour que xale yi mun a toog di fi liggéey. mooy benn nel benn. oui benn ñaar. Mhm. ñi ne dañuy def li ñuy naan immigration choisie mooy sélective. oui léegi au lieu booy di jël gaal yi ñoom Espagne dañuy joxe fi des profils de sénégalais yi nga xam ne Sénégal moo leen di sélectionné ñu daal di ñëw Espagne dafa liggéey normalement mais projet boobu fu mu mujjee jaay visa la mujjee. projet boobu. bi nga xam ne dañoon dañ doon sélectionné ay ndaw war nañ yóbbu ci ay jaay visa man xam naa ci ñi nga xam ne ay professeur nañ ñii ci ay ministère nañ nekkoon ci foofu nañu jaaree dem Espagne muy benn xaalis bi nga xam ne moom nañ fi waroon dugal pour xale yi toog fii di di béy ñu tuddee ko woon plan REVA mais plan REVA boobu ñi ci gën a gën a gën a gën a gën a bénéficié wu c'était des caciques du pouvoir tey ñoom nga gis seen tool yu mag yi c'est-à-dire au lieu que ñu jël xaalis boobu utal ndaw yi ay tool ñu fay liggéey mais ñoom seen bopp ñoo aaki moom xaalis bi ut ci ay tool. jamono yooyu sax am na ay accusations yu doon jóg di wax que ni euh, tracteurs yi ñu ngi woon ci sous région bi. diggante euh, Mauritanie Gambie oui Mali. Mhm. donc ñooñu tey jii imaginez ces ces ces ces gosses de 2007 la mhm. ba tey jii ñoom ñooy nekk ci mbëkk bi parce que ñoom bi ñu leen di delloo si li ñu gë li ñu jàkkaar li ñu jàppoon mooy bu ñu egsee seen dëkk. y aura des conditions de travail mooy bu ñu daañu am fu ñu mën a réinsérer di fa liggéey ñu ñëw <laughs> lu ñu gis gis fa ay ministre ki ay DG ki ay haute personnalité euh, voilà daal di jël plan REVA bi à leur profit tey nag xale yi nga xam ne ñoo sacrifié wu braver tous les risques océan comme désert ñu ne dañ leen di delloo si Sénégal mais delloo si bi il faut ñu xam nag ci yan condition la parce que euh, réew européen yi mënuñu la delloo faw tant que sa état signé wul accord ak ñoom xam nga temps yee euh, Royaume-Uni dafa signé woon ak dëkk bii di Rwanda benn accord mooy maanaam migrants africains yi migrants clandestins africains yi nekk yëpp Royaume-Uni bu ñu leen jàppee dañ leen war a indi Rwanda Rwanda signé accord boobu mais xam nga kan moo ci teg vetoom ba tey jii kiiwul ce sont les députés anglais. ñoo ne non ñoom mënuñu nangu ñiy jëlee nit ñi maanaam nit ñi épreuve yi ñu traversé ba ñëw ba Angleterre ñu war leen delloo ci benn dëkk bu ñu naan Rwanda quelque que soit la qualité de vie au Rwanda mais jàpp ni que nit ñi bu ñu eggee Rwanda mun nañ fa am la ñu war a am mooy maanaam mun nañ fa am liggéey mun nañ fa maanaam euh, tekki genre accord yooyu nag dafa am ay réew yu ko signé Espagne bu demee tey jii. plus de dix ans après euh, refoulement yi amoon 2007 dem décider ne day refoulé waat ay sénégalais la question qu'il faut se poser mooy quelle la nature du contrat ou bien quelle la nature des accords signés entre l'État du Sénégal et l'Espagne ce que Espagne day delloo si sénégalais yi nii ou bien da leen delloo si contre ah moyennant une contrepartie contrepartie bi mooy lan mooy est-ce que Espagne day financer le retour de ces gens mooy maanaam comme waa léegi dama leen di delloo seen ay ay njaboot. Mhm. dinaa ci boole nangam ci ay milliards. pour que ngeen ut fa ay mbir yi nga xam ne xale yi daan ci mën a jàpp liggéey. Mhm. il faut se poser une question. parce que gisuma Sénégal war am intérêt ñu rapatrier ay doomu Sénégal yokk le lot des chômeurs yokk le lot de frustration te état du Sénégal du ci am dara. Mhm. dana ma jaaxal de. waaw yaakaaruma nag. yaakaaruma. que ñii ñu jiite bëggee noonu sénégalais yi ba naan dañ dañ leen bàyyi ñu tumaranke Espagne mhm. Mhm. waaw mhm. ndéem sénégalais yi ñoo xool ni que ñoom tëdd fii ci ay néeg dem tëdd fee ci ay mbedd moo leen gënal mooy ko kon tumaranke gi sori na trop ci réew mi li ngay wax nii sax am na benn journaliste taskatu xibaar Guillaume Perrier mm. euh, di euh, franco-turc bu ma juumal euh, mu def ay enquête interrogé ñi nga xamante ni ñoom ñoo jot a traversé Euh, boobule euh, géej ba yegg fi nga xamante ni mooy îles Canaries déjà li mu njëkk bi ni mooy si les îles Canaries connaissent aujourd'hui de migrants sénégalais c'est totalement lié à la situation au Sénégal où au où aura lieu le 25 euh, février prochain mu ci tous les jeunes que j'ai interrogés ici sont déçus du gouvernement de Macky Sall qui a dirigé le et qui veut passer le témoin à son premier ministre. Tous sont euh, des supporters, tous sont des supporters de Ousmane Sonko qui restent emprisonnés, empêchés de se présenter pour le moment. Tegatine, les pirogues qui servent à effectuer euh, cette traversée périlleuse 10 à 15 jours de mer sont des bateaux de pêche, mais la pêche est en crise depuis que le gouvernement euh, sénégalais a vendu ses euh, côtes poissonneuses à mmh. l'Union européenne et à la Chine. Beaucoup de jeunes euh, pêcheurs partent, mais au-delà, c'est toute des faubourgs de Dakar et le pays, une saignée pour le Sénégal, le signe d'un désespoir aux causes euh, très euh, très concrètes li nga doon wax moom la euh, taskatu xibaar bi confirmé mhm. parce que moom euh, am na chance interroger ñi nga xamante jot nañ traversé mais li ñuy wax mooy que li tax ñu jóge Sénégal dem Euh, parce que Ousmane Sonko mënta doon candidat dañ ko empêché tëj ko ci kaso bi espoir bi nga xamante ne moo nekkoon ci moom wala moom la doon porté doon ko symboliser espoir boobu euh, dafa mujj ndax saay moo tax ñu génn euh, préféré dem xool li nga xamante mooy aventure. mais heureusement que c'est un journaliste étranger qui l'a dit. parce que yaakaar naa bu doon ñun ñii kenn ci ñun moo génnee li ci eh, gémmiñam ñu dëkkal la fi nga fi nga dëkkul. mais effectivement Pape Matar kenn mënu ko kenn mënu ci génnee la situation politique actuelle du Sénégal. oui moom de loolu la bind. non kenn mënu ci génnee. absolument parce que nag 12 ans yu Macky Sall yi fii nañu fekk. 12 mhm. ans wu président euh, Ablaye Wade yi fii nañu fekk. Mhm. mais jamais dama ne de mémoire de mémoire laa la wax c'est-à-dire pour être de bonne foi de mémoire. oui flux migratoire bi ñu gis c'est quelque mois mosuñu ko gis. Mhm. man de personnellement mosuma ko gis te moom mi journaliste bi ni mu enquêté nii. ñun mille 2007. Mhm. avec un média marocain espagnol noonu nañ ci enquêté mais effectivement li mu wax c'est la vérité crue. Mhm. nit ñi li leen fi bàyyi woon ci dëkk bi. metti na woon mhm. naqari na woon. mais nit ñi dañu jàppoon ni que surtout les jeunes. Mhm. amoon nañu benn semblant d'espoir. dañ ko appaloon sax ci 2024. waaw mhm. mun nañ ko muñ ba 2024. oui mu jeex. mooy espoir boobu ngay wax. Mhm. ñu tuddee ko Ousmane Sonko. mais bañ demee ba jàpp ko c'est-à-dire même bu bi ñuy jàpp sax nit ñi avant moom Ousmane Sonko. oui ba tey espoir boobu mu ngi continuer woon di dund. nit ñi jàpp ne que ba léegi rien n'est perdu. mais bañ demee ba téye Ousmane Sonko. ba pare nag teg un acte bi nga xam ne acte boobu moo commencé soo ko xoolee boo jàngatee tuuti Pa Pa Matar. oui tëju Ousmane Sonko bi. Mhm. act bi ñu ci teg après si le flux migratoire bi commencé mooy lan mooy bi ñu dissoudre Pastef boobu la xale yi ne xam naa o oh, ñu ne lu ñu yaakaaroon kon du am. Mhm. nañu defoon Mamadou Dia 1962. ñu ngi koy bëgg def sunu champion bi ca noonu ñu gis ci yeneen yeneen ba ci les tentatives validation de la candidature de Ousmane Sonko. lii nga xam ne la suscité woon autour de la population surtout au sein de la jeunesse. mu doon la nga xam ne euh, xaw ma euh, nan laa ko mun a wax cest dafa dafa dafa bloqué. ambition de des jeunes ñoom jàpp ñu dara lu dul comme lii nañu yaakaaroon ne que 2024 bu jotee daañu fal ñun ku ñu bëgg kii nga xam ne moo ñu jox projet bi nga xam ne yaakaar nañ ni Sénégal bu fa jógee dana baax daañ ci gis suñu bopp comme léegi nii la demee kon nag ñun nañu génn Sénégal bàyyi fi Sénégal bàyyi leen ak seen réew bàyyi leen ak seen réew mais buñ si buñ tollee foofu euh, Pape Sané mooy que vraiment euh, xale yi jaaxle nañu mais mooy li ma wax sama njëlbeen wax mooy que on a atteint un pic de désespoir dans ce pays. Mmh. jamais sénégalais cest à nit ñi ñàkk yaakaar gi ñuy dund actuellement. munoo mm-hmm. leen wax dara dara dara dara lu dul 2024 Ousmane doon a bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. leneen loo leen wax ça ne les intéresse te loolu c'est des faits de société c'est des faits yi nga xam ne dañ koy war di analyser di ko jàngat. xool lu ma mun a jur ci dëkk bi xool lan lan la mën a indil dëkk bi mais malheureusement on est dans ce qu'on appelle la politique politicienne su may bañ Pape Matar dama koy bañ. juste parce que Pape Matar neexuma wala ma Pape Matar bokkuñu kaa. bañuma ko parce que Pape Matar idée yi mu baaxul et loolu la on en est là à à on en est on arrivé là dans ce pays. léegi nag. jeunes yi di génn. Mm-hmm. ils ont tort ils ont raison. moi je suis mal placé pour les condamner mm-hmm. parce que ku ci nekk ci ñoom yaa xam lan moo doon sa bébét ci àddina te dañuy naan sax ku nekk ak ak say raisons. ku nekk ak say raisons. Mm-hmm. comme ñoom jàpp nañ ni que nag lii taxoon ñuy xeex. Mm-hmm. lii taxoon ñu yaakaar ni que ñoom mun nañu toog ba Sénégal euh, bi ñu bëgg. Sénégal bi ñu yaakaar nekk. avec Ousmane Sonko yaakaar boobu mu ngi tas. dañuy dem donc vraiment il faut le respecte mais ma tamit dafa am benn jàngat bi nga xam ne tamit dama koy jàng dama koy jàngat quoi. waaw euh, Pape Matar une telle facilité. Mhm. dans le convoyage des candidats à la migration. dañ leen ko yombalal dafa yomb. waaw mhm. ah, bu nekkee ñoom mën nañu génn euh, Sénégal. dem ba Îles Canaries te kenn du leen intercepté mën nañ xalaat kon euh, Sénégal nekkuñu ci sécurité Europe aussi nekkuñu ci sécurité surtout jamono joo xamante ni nga wax ko terrorisme waxu terrorisme non wax mooy yomb même euh, euh, au delà de yombal boobu oui mais ça va pas matar c'est pas toutes les familles sénégalaises ñoo mën a génne quatre cent mille cinq cent mille ah en en en en dire ah du famille yëpp mën a génne trois cent quatre cent mille cinq cent mille de ah nga génnee nga génnee mois de janvier euh, quatre cent mille cinq cent mille sa doom dem ñu delloo si ko waat ou dem ba ci biir gaal nga euh, am paan ñu dellu si waat février mars nga génnee waat cinq cent mille ainsi de suite soo déglu euh, waxtaan ak xale yi da nga ci gis ña nga xam ne ci biir at bi trois fois wala quatre fois daañu rajale daa daañu fay quatre cent mille cinq cent mille dem mhm. c'est-à-dire que man dama ne il faut que ñu gëstu un peu xaalis bii nga xam ne lay xale yi di utiliser. di ko fay borom gaal yi fan la xaalis boobu di jógee. mooy benn ñaar. Mhm. pamata xam nga gaal fii Sénégal. oui état du Sénégal daf koy subventionné day subventionné la fabrication des pirogues. Mhm. gaar bu war a jot un million cinq cent wala deux million mhm. daanaka deux tiers yi état du Sénégal moo koy subventionné. waaw mais man. su ma subventionné tey jii Umar fayal ko mu def gaal daf gaal gisuma Umar ci benn waafu Sénégal mu fay napp ma toogaat tuuti Umar ñëwaat pour ut beneen gaal mais xanaa balaa ñu ko jox gaal daañu xam premier gaal bi fan la dem parce que y problèment un que gaal bu dem moom euh, du dellu si. waaw gaal ak moteur état du Sénégal da koy subventionné man nag dama yaakaar ni que foofu nag ak xale yi fu ñuy jëlee xaalis ba ñuy demee. il faut ñu gëstu mbir moomu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. léegi nag ñëw ci troisième bi. mooy que facilité déconcertante bi nga xam ne moom la ñuy rombee traverser les mailles du file mm-hmm. alors que tey jii l' état du Sénégal son quarante pour cent de son budget dañ ko investir ci matériel ci ci armée ci défense ak sécurité. mais Pape Matar après chaque jour ñu naan ñu dëkk bi terrorisme terrorisme terrorisme menace terrorisme et consort ñi naan gaal yaa ngi génn di dem di dem. tax kenn xamul lan la transporté. ah ah na de. doy na waar waaw doy na waar trop. <laughs> day na waa ma liiraatal la may la nga soufflé li nga xamante ne moom la euh, Guillaume Perrier di taskatu xibaar lu mu bind euh, di texte bu am solo euh, nee na benn bi si les Canaries connaissent aujourd'hui un tel afflux de migrants sénégalais c'est totalement la situation politique et sociale au Sénégal où aura lieu une élection présidentielle le 25 février prochain nee na euh, ci euh, wolof que ni mm. bu euh, Canaris gisee